léegi nag ñu seeti guy gi moom ci boppam nan la nar a taxawee ak li ko démb Ama Baldé def ndax da ko jàpp psychologiquement war a jàpp ko. tu sais moi c'est le combat c'est le combat quoi c'est le combat je suis entraîné juste pour pour pour pour pour pour, pour mon doole je suis entraîné pour mon doole hein. way kii di nga gis loo musul gis yow ama di nga gis loo musul gis da ngay dof-dof lu rek di nga gis loo musul gis waaw may gërëm suma yaay di gërëm suma papa di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ginnaaw yàlla yonent bi ñooy jàpp ci làmb ji di gërëm waa États-Unis yi nga xam ne dañ ma doon jàppale you know you know common sense everybody thank you I am angry you eat you I not I not understand Ama Baldé li may wax ni dégg ko I not understand I eat you the breakfast is not ready I eat you ay not kam yu baak yow may gërëm suma papa non Bécaye may ma rek may gërëm suma gërëm waa waa ñëpp di leen xamal ne combat bi bu ñu tëddee nañ nelaw di gërëm waa New York xam nga di gërëm waa Atlanta di gërëm waa Cincinnati Ohio ñoom ñëpp maa leen di gërëm man dama entraîné man kii taxuma jóg ah Bécaye kii taxumaa jóg kii taxumaa jóg quoi kii ma kii yow maa yow da ngay dof doflu ah c'est le combat que tu n'as pas oublié dans ta mort c'est le combat c'est moi qui te fais le le le le mordre le sang sort moi je bouge ça tu tu vas tuer moi tu toi tu vois da burdi ay ay ay ay <laughs> ay guy gi dof la a guy gi dara nekku ci tànk yi mais xoolal mu xoolal ndax li dara nekk ci war a nekku ci xoolal ama xoolal xoolal nag li dara nekk ci war a dara nekku ci xoolal da ngeen di dof dof lu rek. ma ne loo ci xoolal non Bécaye wuyu ma no déglu ma déglu ma man ñoo ma fii pour ngeen jàppee ma ay comédien damay bëre kon ñoom quoi ay don't non ay idiot ay idiot ay ay idiot man li may lekk doo ko lekk ay idiot ay idiot ay don't cry ay idiot man li may entraîné moom kii xajul ci moom kii taxumaa jog non Bécaye dama lànk rek kii taxumaa jóg quoi man kii taxumaa jóg yow du ma jat sax non billaahi du ma jat xam nga ñeneen dama taxaw du jat mais ak yow du ma jat non billaahi non Bécaye may ma rek xoolal non I don't know I don't know because I am angry you idiot waaw c'est le combat que je prépare comme ça c'est pas le combat de fowukaay quoi non may ma yow dama lay cop man maa la wax yow combat bi da ngay pare bàyyi bëree yow dama lay dóor sama ak ñoo ma dóor ko ak ña nga yaakaar ak ñu topp sa ginnaaw yow amul bala Gaye amul dara na ma ne moo pare coow ci Balla Gaye laa jëm nga ne yoonam nekku ci dama ne moo pare coow ci bala Gaye laa jëm yow da ngeen foog xoolal ndax fii dara nekk na fa dara nekku fi xoolal ndax dara nekk foro dara nekk fi non béykat yi xoolal affaire dafa war a leer xool xool rek dara nekk foro dara nekk fi waaye maa tey non non bàyyi ma bëgg naa bàyyi ma bëgg naa bàyyi ma loolu dama xoolal taawul taawul nañ ko bàyyi fi ba ko dama ko war a regalal dama ko war a regalal mu ne non dama ko war a na ñëw dama ko war a regalal dama bàyyi non dama ko war a yow ama ama bandem ne bu leen teyoo bëgg naa bàyyi ma nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi